tey jii ci bëccëg gi tuuba tawal na taw yu njëkk maanaam tuuba sebblu na taw mi nag ñi ngi ko nemmeeku ginnaaw ngelaw lu takkoo takk lu am doole loo xam ne ni njëkk na fee jaar poussière ba xonq cooy ginnaaw bi ci la taw bi daal di tàmbali booba ñaari waxtu ci bëccëg moo jot taw bi nag daal di continuer wéyal ay jéegoom daal di am ay millimètres yu takkoo takk yoo xam ne nii sotti na ci dëkku Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul bile diire toll ci benn waxtu muy sotti rekk loolu le di fësal ne dugg nañu ci nawet bi. di xibaar bopp dina bégloo bépp baykat boo xam ne ni yaa ngi yowoo ci diwaan bu bawal.